à Massar Sud, candidat bu coalition gox yu bees di Alioune Badara Seck mi ngi wéyal ay visite de proximité am jóge ay Noumédi jaaree foofe ca Médina Kell 2 ba Daaru Salaam Alioune Badara mi ngi dellu ci programme am lu ko tax a rek modi soppi xar kanamu Kër Massar yu suñu programme coalition gox yu bees mm-hmm. dañ ci jiital ndaw ñi parce que ndaw ñi ñoy avenir gox li tax nak ñun ñu jiital ci ndaw ñi moy Kermassar Massar dafa bari ay chômeur ñu wara a ndaw ñi jox leen accès à l'emploi ñu mëna am liggéey ñu am xëy parce que lu tax Kermassar bari chômage parce que Kermassar amul bërëbu liggéeykaay bërëbu liggéeykaay yooyu la ñu war a andi fii Kër Massar ñun mairie mën nañ def loolu su ñu leen di dugal si bërëbu liggéeykaay nag dañ leen di former centre de métier yi la ñuy taxawal incubation lay def formation insertion suñ leen former ñu dugal leen foofu ndax ñu mën a jàppale seen i wayjur soo defee loolu nga jàppale leen si sport ak culture parce que amul benn infrastructure sportive bu fi nekk terrain mini foot sax amul Kër Massar centre culturel amu fi yooyu yëpp ñu war ko fi taxawal beneen bi mooy li nga xam ni mooy ñu jàppale jigéen ñi parce que jigéen ñi ñoo war a taxawal fii Kër Massar entreprise yi nga xam ni ñooy doon les futures entreprises de Kër Massar di a jël tamit si ndaw ñi i koñ di leen di jàppale li mu manqué dafa bari lool looloo waral mu daal jiital ndaw ñi ak jigéen ñi ngir rek Kër Massar mën a naat waaw parce que ñooñu ñooy avenir

ngi si centre yi ba léegi jafee mettil nañu processus bi nak pour ñun parce que suñu ñu bàyyi woon ak carte yi ñu yoroon fi mu nekk nii defe naa élection yi tëddee na bor ba pare mais instant il faut que ñi nga xam ne jotuñu jëli seen i carte ñu dem jëli ko pour que 23 janvier ñu tànn coalition gox yu bees ñun lu ñu wax gox yu bees mooy bulletin bu verte bi guy gi la am ak ñaari néeg ñax yi na ko ñëpp xamee bu baax mooy li nga xam ni gox yu bees suñu yéene mooy tabax ay gox yu bees li ñuy wootam population bi mooy nañu jëm si élection yi si jàmm ak salaam am na ñoo xam ne ñi ñuy fekk suñuy campagne suñuy caravane di ñu provoquer ñun du ñu répondre provocation boobu ay fan rek des ngir campagne électorale